objectif bi nag lenn la ñun ñëpp xam nañ réew mi fi nga xam ne fa la toll mooy dafa mel ni Sénégal dafa nekk en danger. ku nekk xam nga ne li nga xam ne mooy crise de valeur mu ngi fi crise de morale am na fi crise d'autorité mu ngi fi installé wu si réew mi ñun nag comme yàlla moo ne al ulama warasatul anbiya moo tax nag ñun ñu jël suñu bâton de pèlerin ne nag dañuy taxaw nag jox suñu mission képp kuy. responsable de famille père de famille am nga jaaxle am nga jiixi jaaxa ndax lan élection yi ñu jëm naka lay demee naka lay kiyee nag dañuy wax comme ni imaam yi arto ñeneen artu ñu nit ñi nga xam ne ñooy collective bi danañ wax ak ña war a waxal ngir lan ngir ñu fexe ba Sénégal ñi nga xam ne ñoo ko fi ñoo ko bëgg a yëngal muy acteur politique politiciens yi dañ leen di joxoñ les politiciens yi laalo dañu bëgg a jël réew mi en otage mais tamit li nga xam ne mu ngi fiy commencé nuyoo muy affaire ngóor jigéen te gars yi ñu di jël ah, seen courage dénoncé ko wax ko ñu ngi wax gars yi ñu naan waa assemblée nee nañ nangam ak i loolu nag ñun en tant que ay responsable buñ ko nangu fii ak ku mu mën a doon.